ñëw boo xam ñaareel bi yoon la ñu def ko ci Afrique ñaareel yëpp Sénégal la kon loolu mooy wane ne président Macky Sall engagé na réew mi pour que ñun ñëpp ñu jàpp ci xeex Sinébar xeex li nga xamante ne mooy jëfandikoo lu ñu war jëfandikoo ci tàggat yaram defe naa ne réewu Sénégal ba ko président Macky Sall yore ba léegi li mu jot a def ci investissement ci wàllu tàggat yaram ba ñu commencé gis trophée yéeg loolu du foofu rek la def investissement parce que man mii nga xamante ne may représenté Afrique ci bureau bi muy la COP liñ ci def jot def ak taxawaay biñ ci jot am ci ndigalu président Macky Sall lañ ko amee ba ñuy dem ci COP bi nga xamante ne Afrique moo war a jël njiit li te jàpp nañ ne Sénégal a koy jël parce que ci loolu la ñuy liggéey ci loolu bi ñu président recevoir démb. li ko monde bi yëpp wax parce que ñii fi nekk nii c'est monde parce que dañu tas continent yi par cinq muy cinq continent continent bu mu nee dafa am ku ko tey Russie ngi fi Asie ngi fi Afrique ngi fi Europe ngi fi Océanie ñëpp a ngi fi kon lu ama am solo la loo xamante ne li ñu ciy wax ak li ñu ciy liggéey Afrique moo ci war a jiitu parce que bu ñu bëggee ñëpp di def tàggat yaram te kenn du ci jël produit bu warte jël loolu moom mooy tax xele yi am wërgu yaram loolooy tax it compétition yi am njariñ kon bu ñu xoolee ni population Afrique tëddee nga xam ne ndaw ñi ñoo ëpp mag ñi te ndaw ñi ñëppay def tàggat yaram defe naa ne réew mu ne war naa soob loxoom ci xeex lépp loo xamante ne drogue la ci wàllu tàggat yaram. dopage xam nga du ñu ne mu ngi fi mais mënut a ñàkk parce que am na ñoo xam ne comprimé la ñuy jël waaye am na ñoo xam ne sunguf la ñuy jël parce que nag pharmacopée dafa am. loolu moom mooy suñu tradition te am nañ fu nekk sport traditionnel moo tax loolu lépp ñu war ko encadrer ñu ngi def test làmb ji sax làmb bu amee mbër yi dañ leen di tester avant ay après gis ngeen ñuy jël seen i seen i saw pour mën ko étudier gis ngeen fas yi daw sax fas yi di daw nii di course sax de boo gañee ba pare dañ lay bu laa ñu laa jox raaya bi donc loolu lépp bokk na ci li Sénégal teg ci ci place bi pour wane ne ñun dañoo bokk ci xeex bi nga xamante moom la ñuy xeex wàllu dopage ci ci tàkk. ah neuvième session moom laa léegi dama ne ñu ngi dem ci neuvième session au mois de novembre ci fin octobre te bu ñu ci yeggee Afrique moom mooy jiite kuréel gi nga xam ne kuréel bu boolee lu mot ñaari téeméeri réew la te Sénégal mooy représenté Afrique kon jàpp nañ ne Sénégal mu ngi duggaat ci yeneen chantier. chantier yoo xamante dañ ciy lëkkaloog tàggatkat tey ñi nga xamante ñooy taskati xibaar yi mu yenn mais lëkkaloo ci ak njiiti réew yi président Macky Sall joxe na ndigal ne dina ci jàpp wax na ak ndaw ñi wax na ak ñi nga xamante ñooy bureau bi ne dina ci gën bokk ci ñi nga xamante ñooy gàddu sensibilisation bi parce que nag xeex bi bu ñu ko bëggee gagné am na détermination mais nañ jaar ci sensibilisation bokk ci nekk xam sa cër ci xeex bi su ko defee mu gën a efficace